laa <laughs> wax voilà donc ci cent jours mënoo ñëw nga ni lépp dina yemb si si si une année deux sax mhm. mënul nekk mhm. Mhm. waaye nag dangay ngay defar te booy defar moom vraiment nañ nañ jël seen temps defar waaw parce que ñun buñ buñ euh, fii ak deux ans trois ans bëgg nañ dëkk bi tegu ci ak yoon boo xamante ni même bu ñu demee ñeneen buñ ñu ñëwee du ñu ragalati jëlee Sénégal fi ñu ko fekk voilà waaye bien sûr <laughs> léegi nag Ousmane Sonko maa ngi jégalu amee suñu téléspectateur yi seetaan ma Ousmane Sonko lu tax demul assemblée nationale teg ay conditions lu rafetlu nga ko. lu tax demul assemblée nationale. waaw mais Ousmane Sonko bind ne bind ay ministère gis ngeen kii bi circulaire bi. ne leen hmm. ne waaye bien sûr na ngeen préparer parce que dañuy waaj a def na ngeen préparer parce que dañuy waaj a def politique. Euh, déclaration de politique générale. Hmm. après ay député bindal ko ne ko hmm. yow mënoo fi ñëw déjà parce que règlement intérieur bi reconnaître allo salaamaaleykum premier ministre allo allo salaamaaleykum maa ngi xaare allo yi salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah ña ngay sant bu baax ku baax kookan la ñu ngi lay xaare tur bi nan la baa doo fi wax lu ñu lay xeebe ma ne baa doo fi wax lu ñu lay xeebe kon tafardal bisimilah ah déedéet kay waaw mais moom bëgg na xam kan la. non gan gan dañ koy tëral quoi. ah mais dañ koy tëral nii di. kii la kii la mat la. dafa ñëw pour porter dafa ñëw dafa ñëw pour porter benn combat. dëgg la. ndax je pense que dafa ñëw porter dafa ñëw pour porter benn combat ngeen bëgg a détourner ordre du jour bi. acca. mais par rapport ak changement yi fi am ci wàllu Pastef man je pense que faut être aveugle pour le changement yi. te en plus dañ nekk ci dëkk boo xamante ne Sénégalais yi dañu yàqam ci. ak nguur moo ko fal pour un mandat de cinq ans bugg en cent jours nga gis ay changement notoire mhm. xam nga changement bu ñu koy wax déjà mhm. ci doxalin lay lay commencé mhm. dëkk boo leen ci gisee àdduna bi boo leen gisee changement par rapport ak changement de mentalité le développement di commencé te mentalité yooyu changement de mentalité gis nañ ko ci Sénégal yi président Ousmane Sonko ak euh, président Bassirou Diomaye Faye les parents dafa nekk ñoom ñoo yàqante rek mais mënoo ñëw rek xëy indi benn projet pour un mandat de cinq ans bëgg a xëy en cent jours di changement yi. loolu mënul nekk amul fenn ci àdduna bi. voilà li may ñuy am mooy ne Sénégalais def naan. te seen quelques changements par rapport ak Mhm. par rapport ak mentalité par rapport ak doxalin yi mhm. je pense que ñoo ngi ci ci ci yoon bu baax mhm. mais malheureusement dañ nekk ci dëkk boo xamante ne dañ bëgg jiw tey may foog ñu may gouvernement bi foog mu ngi liggéey maintenant rek di vraiment di rafetlu seen émission bu baax di leen ñaan ngeen may suñu

yéen combat bi ngeen di porté ñi ngeen fal ñoom ñoo koy saafara. waaw être une personne de mauvaise foi pour wax loolu wala pour gis loolu. parce que gouvernement bi ils sont conscients ci li leen Sénégalais teg ñoom ñoo dina xam ni li leen di xaar. mais mbir mënoo changé dëkk en en en espace de cent jours. en plus que catastrophe bi fi nekkoon dëkk bi tolloon na koo xamante ni. tellement que lii lii Pape Alioune wax na ko lii nekkoon loo xamante ni lu lu lu.

Eh, di ko jaajëfal bu baax a baax moom moom bëgg ñu dugg ci ci projet bi waaw oui dugg euh, projet courant bi waxu waxu projet bi projet courant waaw mais mais mais yaa ngi woon ci dafa yaa ngi woon fu am solo yaa ngi woon fu am may <laughs> am solo xam nga yow euh, Ousmane Sonko lan moo tax mm-hmm. mu lan lank bañ a dem bañ a dem assemblée nationale waaw non boo ñëwee bañ a dem dafa mel ni dañ koo woo nekk ko ñëwal mu bañ waaw dañ ko woo kay xaaral rek dañ ko waaye dañ eh, eh, ko woo. Ah, moom kay daf may. ah mu lay ah, euh, dañ ko dafa war a def déclaration de politique générale. oui mu bind ñi muy liggéeyal ne leen pare leen. Mm. parce que dañu war a def député. Guy Marius Sagna bindal ko nekk noo ñëw parce que règlement euh, intérieur de l'Assemblée nationale mm. reconnaître premier ministre ne mm. tax mu toog loolu loolu moo tax mu toog léegi nag mm. mu wax leen ni leen da ngeen di changer règlement intérieur bi ma ñëw ñu rafaat ko ca léegi ñoom loolu ñu def ko polémique hmm. bien sûr te am na premier ministre yi fi jaar ñoom defuñ loolu polémique quoi que premier ministre yi fi jaar ñoom déjà dañoo dugg ci dugg nañ def nañ déclaration de politique générale ci assemblée boo xamante ni amul règlement intérieur reconnaître le seen premier ministre hmm. léegi lan moo tax ñoom démb ñu woote pour pour pour pour waxtaan defar kii lu mu tudd pour pour. Euh, déclaration politique. non kii waat règlement intérieur intérieur assemblée nationale. Mm. parce que ñoom dañoo dem ba reconnaître nit ñi. il faut que ñu

si si si dëgg ak ci ci ci ci cër quoi moi je parle de ça. ah mais mais gis ngeen fi RTS euh, temps yi ngeen nekk opposition pour ngeen mën a feeñ sax problème la. alors jamono ji dox yéen da rupture d' accord gàcce nga la ama merci mais franchement comme que rupture ngeen. léegi yow da toog sa kër vingt heures di seetaan RTS gis. opposition gis opposition. parce que loolu. loolu amoon na droit boobu depuis. mu wax la.